ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا عكيم بقي جناو بني سنتي برم سبحانه وتعالى julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di ndokkeel ci weeru mag wi ñu nekk rawatina itam biis bii nga xam ni moom la ñu nekk waaye waxtu rawatina waxtu wi ñuy joxe ñaan yàlla moom mi nga xam ni léppi kàttan ci loxoom la nekk yalla yalla dimbali ñu ci katanam ak mbaaxam ba suñu ko jaamoo ci wër wi ak bis bi ak waxtu wi yalla nako ko mom yalla borom bi subhanahu wa taala yalla bu ko nangoo itam yalla nako ful su ko fulé itam yalla nek njariñ ngir xéetu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam sallam di wax ni ñu ci wër wo xamni wër wu magla di weeru saxbaan di wër wo xamni julit jullit war nañ ko bayyi xel ndax wër la wo xamni ci lañuy ramadan ci ñuy waajal koor koor nag dafa doon weer woo xam ne jaam bi dafay am audience direct ak boromam subhanahu wa te ngir dem dajeeg boromam subhanahu wa taala ci ramadan faw dafa dafay waajal boppam ci sax ba ndax loolu liñ ci mën a déggee rek mooy euh, kenn ci ñun rek su amoon gan gu mu fonk wala kilifa goo xam ne dafay jëm si ci moom dafay waajal këram waajal barab ba waajal mboolem la ca aju ngir mën a daje kilifa googa rawatina nag koo xam ne dangay ngay dajeek sa borom subhanahu wa taala yàlla nag kuy dajeek moom euh, la nga war a gën a farloo def mooy tuub jéggalu ci sa borom subhanahu wa taala ba sa wecci ci sa xol ndax xol bi mooy centrale bi nga xam ni mooy mooy lieu bi nga xam ni fa ngay dajeek borom bi subhanahu wa taala foofu mooy mooy mooy fi nga xam ni Euh, fa ngeen joxante ran di wute war faa daje te mooy xol bi barab boobu di xol nag li koy laabal wala bokk na ca la nga xam ni moo gën a baax ci laabal ko mooy fexe ba raxas ko ci ay bakkaar mooy jaam bi raxas boppam ci ay bakkaar ci jëmmam ak ci xolam ak ci ay jëfam ba su dajeek borom bi subhaanahu la nga xam ni moom la yaakaaroon ci audience ba te mooy jële fa la nga xam ni moo koy jariñ àdduna jëriñ ko àllaaxira te loola du lan lu dul attaqwa mooy ragal yàlla ndax jaam bi li koy jëriñ fii ci àdduna ak li koy jëriñ ci àllaaxira mooy bu taseeg boroomam ak ragal boroomam nekk ci moom loola nag ngir mu am ci ab jaam faaw dafay set wicc ci bakkaar comme weer bi nag weeru tuub la bari na lu ñu ci mën a def waaye ñu tànn ci tomb boobu rek ne nañ ko nañ ko laaxibri laante biir ak yenn tuub nag dafay loo xam ni war na ci jaam bu nekk ci waxtu wu nekk dafa nekk ni rawatina ci weer wii ñu nekk waaye nag war na jaam bi ci waxtu wu nekk ak weer wu nekk waaye itam ñu leeral ni tuug dafa bari ay façon bari na ay façon lool moom tuub waaye bi tànn mooy jaam bi nga xam ni ak jullit la am rëcc rëcc bu mu def digganteem ak boroomam te bëgg mu jeex digganteem ak boroomam boobu lañ ci tànn Yalla nak waxtu ko jam tuubale te tuub ga di deug ci mom yalla borom bi subhanahu wa taala fay nangu tuub ndax yalla kat moy ki nga xamni mo wote ak tuub jëm ci mom ki wote ak tuub jëm ci mom nak suko jam bi tuubale te tuub ga di deug ci mom la nga xamni mom lako ci yalla di war lol moy nangul ga tuub ga ndax alquran fay wax ni na ngeen tuub jëm ci sen borom yeen ñi nga xamni yeena yéen yalla la'allakum tuflihu ndax te kon ngeen ngeen jariño ngeen ngeen ngeen taxé wa tuubu ila rabbikum na ngeen tuub mboole seen jëm ci seen borom ayyuhal mu'minuun yéen ñi nga xam ne da ngeen wax ni gëm ngeen yàlla ñi nga xam ne dañoo gëm di ay jullit ba noppi def rëcc-rëcc seen diggante ak seen borom ñu ne ko kon lan lañ ci mën a jëlee mun a la laallakum tuflihun ndaxte kon ngeen texe eh, texe nag mooy nga mucc ci mbugalum borom bi subhanahu wa taala ba noppi itam nag bénéficié wu ci yërmandeem ja moom borom bi subhanahu wa taala ndax tuub bépp magasin wiiw tuub mooy la mooy caabi ja nga xam ne moo koy ubbi te itam texe jaam bi mi ngi ci tuub ci digganteem ak boromam subhanahu wa taala tuub nag su ko jaam bi di def far na koo def mu doon loo xam ne tuub bu sell lay doon donte lu jafe la mooy li ñuy woowee ak tawbatu nasu maanaam tuub goo xam ni tuub bu sell la ndax yàlla borom bi subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ni yaa ayuha alladina amanu yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla tuubu ilallahi tawbatan nasuha na ngeen tuub jëm ci seen borom tuub goo xam ni tuub bu sell lay doon ñu ne ko kon lan la ñu mën a jariñ moom tuub bu sell mu ne xassa rabbukum amaana kon seen borom an yu kaffira ankum sayaatikum mu soppi seen ñaawteef yi def ko ay ay ay rafet rafet te tuub bu ñu nangu loolu loolu mooy mooy mooy bénéfice bi yàlla soo ko soo ko defee soo defee bakkaar sa diggante ak moom soo ko tuubee du yem ci jéggal la képp la ko def dafay daal di jël bakkaar boobee na mu toll ci ci ci ci ci ci daraja wala na mu toll ci ci ci ci ci maqaama mu defa soppil la ko defal la ko defal la ko tuyaaba kon yàlla borom bi subhaanahu wa taala suñ ko tuubalee tuub bu sell kat amaana kon mu soppi bakkaar yu bakkaar yi def ko ay ay ay ay xasanaat te itam du ci yem mooy duxilkum janaatin tajri min taxtal anhaar yàlla su soppee bakkaar ya def ko ay ay ay ay tuyaaba tuyaaba yooyu lam leen di mooy ak tabbi aljanna te loolu yàlla nañ ko borom bi subhaanahu wa defal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam ni ab jam kat su tuube tuub ñu nangu da fay melni ku musta def bakkaar at-taibu min adh-dhanbi kam man la zanba lahu nee na koo xam tuub tuub go xamne tuub gu ñu nangu la neen da fay melni yow mosoo do def mosoo def ben bakkaar kon da ngay set wecc ci ay bakkaar motax sa Amadou Bamba waxoon ni ki nga xam mo alku deug deug alku moy ko xam dafa dem ba genn aduna ba noppi yóbbaale bakkaar ndax yalla mom sa yu mi ngi la ubbil bunti tuubam ci bi ngay man ngir nga manam nga nga tuub jëm ci sa borom subhanahu wa taala motax mu ne ki noor ci ay bakkaar ba genn aduna te tuubalu boromam neena koko moy al aliku saqi moy ko xamni dafa dafa dafa dafa dafa dafa alko ba nopi taxé di kon loolu itam yàlla Tub borom subhanahu wa taala musal tuub nak warna ci bepp julit ci waxtu wo xam sa yu xeye mu tuubal yalla waaye itam su ngoonee itam mu tuubal yàlla war na ko ci waxtu wu waaye ab jaam lu mu lu mu saggan saggan saggan war naa fexe ba saa yu xëyee tuubal borom bi subhanahu wa taala ci lim saa yu gonte itam tuubal borom bi subhanahu wa taala ci lim ndax yàlla dafa waxoon ne inna allaha yuhibbu tawabin yàlla nee na ñi nga xam ne dañuy def saa yu ñu defee bakkaar rek daal di gaaw tuub ko yàlla nee na ñooñu samay soppe lañ ndax yàlla dafa bëgg ku ko jéggalu waaye nag Euh, euh, lu ëpp ci jaam ñi euh, waxuma la sax xëy tuub wala gont tuub waaye ñoom tuub sax dadul seen mbir dañuy toog daal tàllal seen i tànk rek mel ni koo xam ne amuñ benn gàkk seen diggante ak seen borom subhanahu wa taala te suñ xëyee ci gàkk ci seen diggante ak seen borom subhanahu wa taala ca la ñuy xëy su ngoonee itam ca la ñuy gont waaye boo naan leen tuub sax day mel ni tuub moom amul benn benn alaaqa moom digganteem ak digganteem ak moom digganteem ak tuub moom jàmm boobu jullit buy tuub nag ak tuubam dëgg alquran moo ko jàngale moo wax ni innama tawbatu ala llah nee na dëgg dëggi tuub fa suñ borom subhanahu wa taala lillazina ñeel na ñi nga xam ne yaamaluuna sayiat wala yaamaluuna suu jëf nañ bàkkaar bi jahalatin ci ñàkk xam ab jullit ndekete suy def bàkkaar su koy def na ko teg ci ñàkk xam su demee laa jéggalu ko mu jégal ko innama tawbatu ala llah dëgg dëgg tuub fa yàlla nag li lilladina ñeel na ñi nga xam ne na suu jëf nañ bakkaar bi jahalatin ci ñàkk xam waaye nag su ma yatuubuuna min xarib ñu gaawantu nag ci tuub bañ bañ a ndig ca tuub ga gaawantu nag ca tuub ga yàlla nee na fa ulaayika ñooñu de nee na ci def lool yatuubu llahu alayhi ñoom ñi nga xam ne bu ñu defee bakkaar gaawantu daw tuub ko bañ koo yeexe nee la yàlla di rek muy jéggal leen te inna wa kaana allahu aliman hakima yàlla mooy ki nga xam ne ku xam la yàlla koo xam mooy ki nga xam ne moo xereña lépp tuub nag kan lañ koy defal mooy yàlla borom bi subhanahu wa taala moom la ñuy tuubal mooy li sëriñ bi wax naan wa an yatuuba kulla ayn muxtarif li rabbihi subhanahu min qabli an yakuna saaqitan alayhi fi zaman tuub nag yàlla lañ koy defal te deesu ko yéexe ndax yéexe tuub dafay war dafay dafay dafay waral wala dafay jur merom borom bi subhanahu wa taala ci ab jàng tuub moom da ngay tuub te reconnaître ni li nga xam ni moom lañ lay rapproché yaa ko def ba noppi itam rëcc ko te bañ ca dellu te gaawee ko bañ koo yeexe ndax loola mooy tax yàlla borom bi subhanahu wa taala jéggal la te doo dugg ci te doo dugg ci am meram tuub itam nag dafa am ay sart bokk na ca sart ya la ñuy wax rëcc mooy li sëriñ bi wax naan wa min surutiha nadamatun ala ma faatahu min almaati masjala wa niyatun فيما بقي من العمر عدم عوده لكل ما يدعو وأن يكون طارق الحسيان إن كان عافيا بلا توالي ولا له تاخر أو تصبر لتوبة ولا يقول, ولا يقول أصبر حتى هداني صاحب القفران فإن من علامة القسران مع السخاوة ورين الغلب إني أعوذ من حما بربي dana ka أي ay sartam da caa bokk بكار ci boo defee bakkaar ki sa li def ki sa dund mom bakkar bobu do ko def waye def bakkar tay tuub ko tay bu suba nga defat ko bo ëllëgee nga tuub ko yalla neena koku kooku ko jegal du ko jegal tuub tuub guñu ñu mom gu sell tuub go xamni bo defé bakkar gi manam ba tuub ko sa digënté ak sa borom bo wori ni sa borom jegal na li def ci dund gi mom do ja dal mag ni buñ la daan ma di jangal bind bi dañuy wax ni misal mi la ci mëna jox moy manam yow mo xamni da nga yëkëti won sa tank tek ko ci aw xal mu lak la nga dal di wad taxawé né xal wi di yàgg ñu ne la delloo ci sa tànk ni ngay mën a waati ni doo ko ci delloo nee na tuub bu sell noonu la mel boo defee bàkkaar bi rek ba tuub ko mel na ni tegoon nga sa xal sa tànk ci aw xal teggi nga ko ñu bëgg la ko ca delloowaat loolu fitna lay jur ci yow moo tax doo ko ca delloo nit nag su defee bàkkaar te mënta waat ni maanaam euh, mel na ni joggi naw xal te dootu ko joggi su boobaa tuub ba des na tuub moom ku defal ku defal ak tuub euh, ku toll ni yàlla borom bi subhaanahu wa taala war ngaa mën a waat ni bàkkaar bi moom dootoo ca dal Eh, su ko defee itam nga gaawantu nag ci bàyyi mooy su fekkee ab moykat nga woon waaye nag am na ñoo xam ne ay moykat lañ te sëriñ bi tudd na leen wax na ni ñoom fu ñu toll di mooy waaye dañ naan ah man maa ngi xaar rek yàlla mu baax mi daal bis dana ñëw xëy na mu gindi ma ba mu bàyyi def bakkaar daal di nuur ca rek soo waxee nga leen yàlla lay xaar ci ci mooy yàlla ji mooy mooy yàlla suñ tubaa nee na loolu màndargam texee di la ak xomaatu xol nee na xol bu xomaat ak nar a texee di nee na loolu kooka mooy wax loolu daan na yàlla na ma yàlla musal nag ci ñaar yooyu moom sëriñ bi daal di muslu ci loolu waaye itam tooñ tuub googu nag mooy gi ma gi ma tàmbalee mooy tuub gi nga xam ni moo dox diggante jaam bi ak boroomam waaye am na geneen tuub itam nag goo xam ni mooy dox diggante jaam bi ak moroomam ndax yàlla moom li mu la mën a jéggal mooy bàkkaar bi nga xam ni maanaam da koo def sa diggante moom waaye bi nga xam ni danga koo def sa nawle nag booba moom nawle bi mooy ki nga xam ni mu nga koy tuubal mu jéggal la ko booba itam dafa bari ay façon lool Euh, mi ngi mel ni nit ki nga tooñ ko ci alalam mooy nga sàcc alalam wala nga triandé ko wala nga def ko nangam nangam ak noo ko defee rek tooñ ko ci alalam wala nga tooñ ko ci ab daram maanaam nga nga xas ko wala nga saaga ko wala nga def ko moo moo xam daal noo xam ni moom nga ko tooñee moo xam ci daram la moo xam ci alalam la ñaar yooyu danañ ci tooñ doomu aadama ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba nag jàngal nañu ni nga xam ni noonu lañ koy noon lañ koy defee mooy la ñuy wooyee raddul madalim maanaam delloo ak tooñaange su fekkee da ngaa tooñ nit ki ci alalam boo xam da nga koo sàcc wala maanaam da nga koo da nga koo triandé wala noo ko def ba jot alal ja te te te rek su boobaa nag nee na la nga xam ni mooy la ca war mooy fexe ba alal jooju nga delloo ko ak noo ko mën a lii kat maa ko jëlee ci yow ci façon bii laa ko jëlee te jaaruma ko woon ci yoon ma ñaan nga ma la ma jëloon a dana lool rek moo ko mën a saafara léegi da am koo xam na xelam danaan waa nit dundam saxut waa su faatoo nag su koo ko faatoo mu ne su faatoo nee da ngay jël alal ji dem jox ko ña nga xam ne ñoo ko war a doon ne leen ah seen baay wala seen yaay wala mbokk diw sàngam moo xam ne yeneen ay waarisam lii kat maa ko moom ak nii laa ko ci jële woon nekkatu fi waaye nag comme alalam ay waarisam ñoo ko moom ay bokkam alal jaa ngi nii man da loolu ñu ne su fekkee dem na ba amatul kenn ku ko war a doon nag mu ne su boobaa nag da ngay jël alal ja maanaam nga saraxe ko te yéene ko yool ba te ñaan jégalu suñu borom te yaakaar yàlla jégal la kon nit ki ndekete munta mucc ci benn côté bo xam da fay wax ni jël naa alali diw nekatu fi wala ay bokkam nekatu fi rek legi man naa jaaxaan déedéet loolu tam islam du nangul lol lamuy muy nangu mooy alal ji mom faw day genn ci yow bi gëna jafé nak moy bi nga xamni dang ko dang ko da te loolu mu li ëpp ci ci ci aduna lu ñuy def moy bo démé ci radio ak télévision yi da ngay gis ko xamni la nga xamni mom la gëna man moy xastaté ak waxante lu bon rek loolu la man ndekete loolu itam erreur la bo xamni nit ñi bayiwuñ ci xel waaye itam loola su amee itam sa digganteeg nit booba mooy ba gën a jafe ndax booba moom faw moom day teew nga door koo mën a jéggalu loolu mu jéggal la ko te moom rek moo la ko mën a jéggal du doomam moom moo ko a jéggal a jéggal ku dul moom ñu ne waaw su dundatul nag mu ne ah kon de li ma ci xam mooy di jaamu yàlla yàlla gu bare bare bare bare bare ngir bu ëllëg si biir bu demee ba nga xam ne àq jooju dox na seen diggante su bëggee nga fay ko ko nga mën a am tuyaaba xam ne da ko ko fayee moo tax nga gis koo ne yomal xiyam lakk bar dañ koy taxawal ay nawleem taxaw mom ak yi dox sen diggante ñi jël ci lu baax lim amon lo xamni mëna ko tek ci pangas ngir mu yobbu ko aljanna ñu fa ko di ko ay bor diko ko ay bor bam mu jeexal takk lu déssé dara rey tuyaaba té fekk ñi nga xamni ñom la toñon ñi ngi taxaw jeexaguñ xam bo bu fekkee la nga amon lepp fay nañ ko bor té ñi nga amel bor jeexaguñ lolu tam problème la ñoñu itam ñi nga am bakkar yo xamni yu leen jaaxal la ñu ne kon ñom dañuy jël ci seen bakkar ñom ñoom ko dolli lako ci lu bon li nga déssé nga xam ne dañuy mujj dina jor jóor jor ba mujj bi yalla dafa wax ni ki dal mom fop leen ko rek yóbbu sawara ki amatul lenn luñu ñuy ci mbiram ndax amatul dara lu bax lo xamni man na ci sukkandiku pour yóbbu ko aljanna doomu aadama dana dund loolu yomal xiyaamatul akbar kon nañ nañ wëlbatiku wattonte ci suñ digganteeg suñ borom waye nañ di nañ wattu ci si suñ borom waye tam nañ wattonte ci diggante ak suñu maram loolee lu mata am lu mata bayyi xel la jambi tam nek ci ci ba naagu ni yàlla moom dootu ko loola itam mandargam texee gi la lo bari bari ay bakar war nga xam ni waxtu wo reccio la nga defon taxaw ci kanam borom bi subhanahu wa taala garanti ni do ko def yalla borom bi subhanahu wa taala dana la jéggal ak yo yooyu mën don ak lu mën don nak nag alquran moko garantie garanti euh na len faral di wax kuy wax euh wax si wax si ben jam la won bo xam ni manam ku bari ay bakar la ndax wax na len moy ki nga xam ni rayon euh Hamza di bay taxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee ba bëgg a dugg ci ci lislaam fekk moom ma nga màkk yonent bi nekk madinatul munawar dafa bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam ne ko man dama bëgg a dugg ci lislaam waaye dama dégg benn aaya bu ngeen di jàng ci alquran boo xam ne dafa maa tënk tënk koo xam ne xam naa ne man daal mënatumaa tuub aaya boobu nag mooy wala sina laa yad'uuna maa laa ilahan aaxar wala yaqtuluuna annafsa allati harrama allahu illa bilhaq wala yaznuun ومن يفعل ذلك يلقى عذابا من يقول لهم متنك ما دفع معي بو خمني دعين دو خمني كوا خمني دفع بقالة يلا راي دوم آدم نجالو كوا كنا نتسك تسمع راي برام سبحانه وتعالى تمان يين لمني كوا كده في الله دنيا دوما من اللي كنا كده فينا دخل خل فكوت كنا من ما رايون همزة كون راي نادوم آدم نجالو يتم دفنا تيتم كرم يتم جامنا كان من لن موي سمبيرجي ci ci ci seen diine ji nga xam ni moom ngeen di moom ngeen di moom ngay woote yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bi mu waxee loolu yonente bi rek yonente bi daal di gàtt waaye borom bi subhanahu wa taala daal di wàccewaat beneen aaya wax ne illa man taaba wa amana wa amila saalihan fa ulaayika yubaddilu llaahu sayiatihim xasanat yàlla daan na daan na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee ko nag ba mu des koo xam ne nag tuub na te gëm te jëf-jëf ju baax wala bu garanti ay jëfam ne dana ko teg ci lu bax ne ko koko nak dana soppi ñaaw téefam ya def ko muy lu bax moy lu mu defoon ci bakkar rek dana ko def dana ko def euh, euh, muy lu bax mu daan ne ah batay tam itam mënagumaa ñëw bind yonent bi ne ko batay tey mënagumaa ñëw de ndax xawma ndax man am naa manam def lu bax am déet ndax ay bi dafa am sart batay, ah yonent bi daldi gag batay euh mu daldi di mom mom mom borom bi subhanahu wa taala daldi wacce benen aya ndax inna laa laa yaxfiru an yusrik wa yaxfiru maa duuna zalika liman yasha yàlla dana jéggale bàkkaar yépp ba mu des ko ko bokkaale saa yu ko neexee rek dana la jéggal bàkkaar yépp ba mu des ko ko bokkaale yenente bi daal di yónnee yónnee wax si aaya boobu mun na ko ba tey mënu ko maa ñëw de ndax aaya bi tam dafa am sart ba tey waaw ndax xaw ma ndax dana soob yàlla li man yasaawu gi mu ne ko ndax xaw ma dana soob yàlla am du soob yàlla mu jéggal moo tax mënu ko maa ñëw yàlla daal di wàccewaat beneen aaya ngir xettali wax si daanaka qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna la yaxfiru sunuba jamian daana yonent bi saa sallam waxal jaam ñi nga xam ni maanaam dañoo yàqu lool bëri ay bakkaar lool yuñ def nee leen buñ naagu ci yërmande suñ borom ndax yàlla dana jéggale bakkaar yépp ba aaya bi ñëwee wax si daal di ñëw madinatu munawar daal di jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi tuub nag li muy baax baax dana toll ci waxtu woo xam ne dañuy dañuy tëj bunti tuub di ko bëgg yàlla du mooy koo xam ne dafa sax ci njaalo dem ba nga xam ne cër ba muy njaaloo te ba muy njaaloo mënatu a njaalo mu door naa léegi daal ginnaaw mënatu mën naa tuub yàlla day lànk koo xam ne dafa wér dafa wér nekk ci li ko neex ba wér di ñëw ba yàgg ba yaakaaratul boppam mu wëlbati ko ne maanaam naa tuub ولتثبتا في جماعة تخين الصلوات الخمس دأبا يا عكيم